dafa xóot yu diis dafay yàq njàpp mu wala lu mel ni ak ixmaaw xëm dafay yàq njàpp ak daanu saddul diine ndax yooyu yëpp sabab la pour njàpp yàqu mhm. kon daal ci tënk lii mooy njàpp ak li koy yàq ak yi koy sabab mhm. Mhm. jërëjëf euh, imam ci tontu laaj boobu kii dafay laaj ni boo ñëwee ci jumaa di julli si fekk imam bi di taxawal mu ne nga ànd ak moom mu ne jotul def taxiyatul masjid mm-hmm. mu ni léegi ndax bu imaam pare mm-hmm. moom dafa war a fay taxiyatul masjid bi wala waru kaa fay jërëjëf ustaas taxiyatul masjid bi yonent bi dafa wax ne isaa uqimati salaatu fala salaata illal maktuba mm-hmm. buñ xasa xasee ba taxawal waxtu kenn du fa julli lu dul julli farata foofu boobaa tayyatu masjid bi booy taxawal ak imaam di ànd ak imaam da nga ko ci yéenaale Cheikh Khalil mu ne wata addat bi fardi maanaam tayyatu masjid boo ko yéenaale ci julli farata julli farata ji daf koy yóbbaale waaye doo ko fay kenn du ko fay moom tey it masjid moom duñ ko fay kon daal bu dee da nga fekk imaam di taxawal ma booy ànd ak imaam li mu ne wa ta addat bi fardin da nga yéenaale tahiyatul masjid boobaa farata toujours dafay yóbbaale sunna wante moom doo sëlmal ba pare di ko fay boo jullee ba pare nag sopp nañ nga teg si ñaar rakk bu dul gannaaw julli tàkkusaan ndax dañoo bëgg njëkk ngay julli nga teg nga jiital rakka boo jullee nga teg ci ràkk waaye nag bu waxee loolu mooy bu imaam taxawalagul imaam moom bu taxawalee yonent ne isa qimatu salaat fala salaat fala salaat illal maktuba kon tey yetul masjid duñ ko fay waaye gannaaw julli di ci teg naafila dafa baax maam borom tubaa dafa wéy ne wa qabla suxrin arbaan wa baxdaha wa qabla asrin arbaan la baxdaha wa hakasa baxdal isaayi wastaxsanu tahiyatal masjidin ba an bayyana mu ne njëkk tusubaar na nga dawal ñeent gannaaw tusubaar dawalal ñeent njëkk tàggu saan ñeent gannaaw timis nga def ñaar wala nga def juróom-benn boo demee ci imaamul xasaali mu ngi ci wax yiw yu rëy rëy yu nekk ci yooyu kon ci tënk tahiyatul masjid kenn du ko xeeb. jërëjëf ci tontu laaj wi. Mm-hmm. kii dafay laaj ni su fekkee ni dañuy julli ñëw ci jàkk ji. Mm-hmm. naam bi di lixaam mm-hmm. mu ni bu juumee ndax dafa war a baamuwaat lixaam bi wala lixaam moom kenn du ko defar ankañ danañ ko defaraat bu dee xam nga lixaam sax sunna la ci maalikiya wante boo demee ci bu maar yi li ci ëpp dañoo wax ne liqaam boo ko bàyyi woon itam du yàq julli yi ndax préparation wu julli la sunna la goo xam ne maanaam julli gi ñëwagul da koy préparer Ibnu Kinaana rek moo wax ne boo ko bàyyee dafay yàqu wante wax jooju daif la ni wér daal Cheikh Xalil dafa wax ne wasaat walaw turikal am dana dal Xalil mu ne julli dana wér donte sax dañoo bàyyi liqaam te tey ko mm-hmm. kon bu ko bu ko bu ko yàqee ci biir liqaam bi ku xam ne ko korise rek mu defaraat ko ànd ak loolu yëpp bu ñu julliwoon te li xam julli gi du yàqu wasaat wala turikar am dal loolu xalil la xalil mu ne julli dana wér donte dañoo bàyyi li xam maanaam te tey ko wante def ko nag dafa baax ndax dafay préparation bu julli te itam ngir sàmm sàmmante waxi Ibnu Kinaana rek yi ne moom boo ko bàyyee day yàqu beneen bi itam li xam euh, doo wax allahu akbar baru ngay wax danga allahu akbaru maanaam raagu mujj yi da koy da nga koy damm mag ñi liqaam baru noddu bar xalil dafa wax ne liqaam dañ koy lixraab noddu nag ma gisoo dañ koy gesam bu dee nodd la allahu akbar allahu akbar ngay wax bu dee liqaam allahu akbaru allahu akbaru kon jar na xam loolu ngay wax ñaari yoon yeneen yi ci des yëpp benn yoon nga koy wax bu dee xarxaamati salaati gi itam la pour moo leeralal ko nit ñi foofu dafa am utee imaam Malik laaj nañ ko mu ne xarxaamati salaati ñaari yoon lañ koy wax amaan na fu ko laaj mu ne benn yoon waaw boo de loolu ute la am nañ nag ñu wér addis yu ñëw ne xatxaam di salaat ci liqaam ñaari yoon lañ koy wax am na ñu ne benn yoon lañ koy wax wante daal noonu la liqaam baru la noonu du bar mhm. kon lu am solo la di ko def di ko préparé julli gi wante boo ko bàyyee mhm. xalil mu ne wasa at walaw am dal julli gi dina wér doonte yaa ko tey sax te dafa mhm. jërëjëf euh, kii dafay laaj ni dafa ne ci julli imaam jiital waaye bi imaam di rukon ba war a siggi avant imam di sujjoot moom juum na daal di daal di jiitu ko ci sujjoot gi mm, mm. léegi comme jiit na ko ci sujjoot gi mm. léegi moom dafa génn ci li ko imam jiite woon ci jullike moo dafa war a génn dem ber julli boppam wala moom bu toppaatee ci ginnaaw imam julleem dina baax jërëjëf génnu ci ñëw na ci muxtasar bu Cheikh Khalil dafa juum dafa jamaj imaam dafa siggi moom mu dem sujjooti Khalil mu ne bu woo bu ko wóoree ne imaam dana ko fekk sa foofa maanaam na ko fa xaar mu fekk ko fa te jullim gi dana wér kon dafa jamaj jënnu ci de dafa juum moom yokku na ci julli ji léegi nag bu àggee rek su jóot xelam daj ne imaam ma fa te gisagul imaam bu jisee nag imaam daari di jëm ci moom na ko fa xaar mu fekk ko fa bu dul loolu day jóg ànd ak ñoom ci rukoom foofu dafa yokk loolu nag yokkul boobu nag imaam moo ko koy enul maanaam imaam mooy sujjóot baxta salaan bi war a sujjóot moom lii boo demee ci ñëw na fa maanaam dafa juum loolu génnewu bu ko defoon ngir tay ko nag moom julli bi la yàqu bu ko bu doon moo ko tay moom bu siggee rek dafay kabaral kabar ar mu topp leen waaye naa dafa juum bu dee imaam mi ngi daari di ko fa fekk ci na toog ko fa bu dee daari suuf pour fekk si ko na dem fekk ko ci rukkoo ba ànd ak ñoom yokk na wante imaam moo koy elul ñëw na ci muxtasar bu sàqale jërëjëf mm-hmm. euh, beneen laaj wi mm-hmm. mbokk mi dafa ni ndax imaam bi nga xamante ni moo war a xutba mm-hmm. léegi moom ndax may nan ka hmm. mu xutba ko hmm. ci lu dul arab hmm. maanaam mu wax ko ci baatu pël la wax wala séeréer mu ni ndax may nan ko ko mu xutba ci waaw ute la moom itam ci fuqaaw yi Malik moom dafa wax ne xutba ci arab wa xutbatun mimma tusamiyu arab loolu moo ne ci téere fiq yi ci bu Malik lu mel ne yi ak Risaalat ibn Abi Sayyid Xayrawaan ak Muxtasar ba ci mu dawana dañoo jàpp ne xutba ci araab lañ koy wax ndax yonent ci la ko doon wax ak sa saaba yi kenn du ko wax ci làkk bu dul arab lawal mu ne donte sax ñi muy jiite xalil mu ne donte ñi muy jiite sax dégguñ ay xajam lañ xutba gi da koy wax ci arab donte ñi muy dégg jiite ajam loolu moo ne ci maalikiya leneen ci borom masaahib yi ñenn ci ñoom am na ñu ne akañ ah xutba discours la maanaam dafay wax pour nit ñi jëriñu kon mën nga koo wax ci làkk bul arab te dana wér notamment Abu Hanifa wax na loolu wala lenn ci ngir Abu Hanifa am na ñu ko fa indi ne xutba mën nañ koo wax ci làkk bu arab mu wér wante boo demee ci Maalik lu ko dalee ci téere yi ndaw yi osma yi wax ci kii ba ci xalil ba ci mu dawana ak mu wata dañoo jàpp ne xutba ci arab lañ ko war a donte ñi ngi jiite sax dégguñ euh, lenn ci masabu Abu Hanifa wax nañ ne xutba mën nga koo wax ci langue bu dul arab mu wér kon boo gisee kuy xutba ci anglais wala ci français wala ci pël wala ci séeréer wala ci olof am na ñu ko nangu ci masab bi masab bu maalik ñoo ko nangu waaye du tey itam ki nga xam ne ci maalik ya la bokk masabu saafi mën na ko jiite wala ci maanaam bul wax ne man ci maalik laa tënku rek kuy xutba ci olof du ma jiite déedéet ndax dagan na ci feq koo xam ne da ngeen utee ci masala moom mu jiite la ci julli sa julli gi wér mm-hmm. yow julli gi jumaa ji nga daan julle ci arab la ñuy xutba tey kii xutba ci olof jiite la wala kii xutba ci soose damal jullee fa bu dee moom nga gis tey te sa julli gi dana wér ndax ku ne ci Abu Hanifa mën naa jiite ku ne ci Saafi ku ne ci Saafi mën naa jiite ku ne ci Maalik ay déggin la yoo xam ne mhm. dafay am ci ay addis ak kooku loolu du ci yàq dara ci diini ji ndax mhm. ixtilaaful ummati rahma wante am na ñoo xam ne dañ koy xóotal ba nga xam ne dañuy wax ne jumaa ji xutba olof man du ma jiite wala ji xutba ki jaru ko ndax boo demee ci usool ñi bokkul ay ay ay ay ay kii ay ngiir mën nañoo jiitaante jiite mhm. suuf boobaa sa julli gi dana wér jërëjëf beneen laaj bi kii dafa ni ndax kii la may nan ko mu ubbi kaamin du xool jërëjëf wa nasaru mushafin loolu dagan na kuy naafila mu ubbi kaamil di ko xool Cheikh Khalil mu ne nag mooy bu ko commencé ci njëlbeen ba moo gën wante gënul mu dem ba ci digg di ko kii wante dagan na ki fi ñu ko mayu daal mooy julli farata moom dañuy tere nga fay téye kaamil noonu la ñëwee ci laxdari lu dul nag nga ñàkk mokkal faatiha bu dee julli farata mokkaloo faatiha booba mën nga téye kaamil wante naafi la moom fu fuqaaw yi nangu nañ nga téye kaamil wala sax jumtukaay boo xam ne alquran nañ ci rek ngay xool di jàng ndax am na ñoo xam ne alquran bugg nañ ko di naafi la te mokk luñ kon na nga téye kaamil di ko naafi la dagan na ñëw na ci muxtasar Cheikh Khalil indi na ko ci téeréem bi waaye maam jërëjëf ci tontu bi nga xam ni tontu nga ko laaj wi hmm. mu yemboog li ñu cëraloon ci waxtu ñu jox la nga tàggu ñi ñu doon bàyyi xel jërëjëf ñu ngi tàggu te spectateurs yëpp doon ñu seetaan di leen ñaanal yàlla bu baax lii lañ andi woon ci fatwa bi di nuyu suñu réalisateur bii di El ma Maodo Cissé ci liggéey bu rafet bi oustaz yi tam maa ngi lay nuyu bu baax macha allah question yi jaar na yoon. wante yii yëpp nag ñu ci koy jox nuyu bi yëpp président directeur général El Hadj Youssou Ndour ci taxawaay bu rëy bi nga xam ne mu ngi koy def ci réew mi ak Birane Ndour Bouba Ndour Ndiaga Ndour mboolem équipe bi na gi yëpp directeur yëpp ñu ngi leen di nuyu di ñaanal yàlla. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf imam yow it ñu ngi lay sant mm-hmm. di la gërëm ci mm-hmm. tontu bi nga xam ne yaa ngi koy tontu laaj wi mm-hmm. ñu ngi la ci sant bu baax di la gërëm ci jàppale goo nga xam ne jàppale nga ko ñi sàkku ngir ñu xamal leen seen i laaj yàlla yàlla fay la bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek gërëm ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa ci kër gi tàmbalee ko ci Youssou nduur mu wàcc ba ci suuf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp alaaji Maodo Cissé ñu ngi lay ziyaara bu baax di leen joxaat dig daje suba ci waxtu bi seen émission fatwa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. يا لا لا لا يا لا يا لا